man la Cheikh Diop nekk administrateur fondation Soxna Bally Mountakha Mbacké ren nag mooy doon suñu deuxième édition ndax ku ne xam ne ne fondation bi mu juddoo ba léegi yàggul mu ngi ci ñaareelu atam fi la toll nii ren nag yàlla dogal mu defaat jëf ju rëy yoo xam tom comme heure bi daaw ni ñu ko defee woon ci koor gi ñu tollantiwaat ko soxna si gis na daal moom lépp action yi mu def yi gën a mag dafa taamu di ko def ci weeru koor gi rawatina fukki fan yi mujj yi xam ne ki lañ nekk nii ñu taamu ko ci ren def ko ci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 ci jàppale néew ji doole ji jàppale ñi nga xam ne ñoo yittewoo ndimbal ndax fondation bi li ko tax a jug yamul sax ci dimbale nit ñi ñu lekk mais am na sànq wax naa ko dafa am ay projet éducation ren jii annoncé nañ sànq ne am nañ benn projet bu ñu war a tabax fële ca euh, Porokhane benn euh, centre benn benn daara moderne bu ñu fa a tabax fële ca Porokhane balaa yàgg fii ci Touba nag gis nañ ne métier bi fi nekk jigéen ñi dañu góorgóorlu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 Madiyana Suisse tabax nañ benn mosquée bu mag boo xam ne 150 mètres carrés la danañ ko inauguré balaa mat un mois fondation moo ko def fondation bi yamul ci loolu tabax na bëtt na ay forage bëtt na ay forage forage yooyu danañ ko inauguré balay yàgg loolu daal fondation bi ren fas na yéene daal gën a taxaw population Sénégal jàppale leen ci lépp loo xam ne mën na ko. fondation bi ci deux ans la toll bi mu commencé ba tey li mu joxe ci ay don jënd ko ci ay matériel lépp lépp enveloppe bi 300 millions francs CFA mat na ko. loo xam ne joxe na ko ci néew ji doole ñi joxe ko ci population yi moo tax ñu xalaat na nag léegi dutuñu continuer rek di def ay denrée alimentaire dañu bëgg nag tabax nag moo tax ñu jubli ci procès construction yi ma la wax noonu ñu jubli ci loolu pour bëgg ko commencer. dañ ko bëgg attaquer dëgg dëgg mooy bu Porokhane bi daara moderne bi parce que dañu gis na daal comme soxna fi léppam daara la na njëkk a commencer ci daara. parce que daara boobu noonu bi ko xoolee projet bi bi ko tëggee enveloppe bi dana toll ci huit cent millions francs CFA. mu nekk daara moderne bu modèle bu mag a mag nga xam ne daanaka gisuñu bu toll noonu fii ci Sénégal mais projet bi ci desaat wax naa leen ne tabax nañ mosquée tabax nañ mosquée waaye nag comme charia daf ñu jiital nañu na ngeen njëkk a jàngale tabax daara laata ngeen tabax mosquée parce que da nga boo xamul boo jógee ca daara ja jàng jàngalu xamoo sa diine nga tabax mosquée doo ko mën a yore moo tax ñu bëgg na da nga nga jiital jàng bi tekki da tekki jàkka moo tax soxna si xalaat na nag projet bi mu war a njëkk teg nag mooy projet jàng alxuraan projet daara moderne njëkkee ko Poroxaan bu paree na door a attaqué yeneen yëpp di stop parce que bii ñu la wax ni ki Touba aussi dañ ki taxaw muy centre de formation bi ak centre de santé bi capacité d'accueil bi ñu ko xoolee ci ay ci li fa nekk ci ci ci dortoir yi dana mën a jël plus de six cent personnes yoo xam ne danañ ci mën a ci ay dortoir am na nag ay euh, ay ay salle de réunion salle de conférence yëpp mi ngi ci accueil bi daal lu mu néew ne dana mat dinañ mën a jël 600 personnes yoo xamante danañ am seen dortoir am seen ay néeg am ay seen toilette yoo dara du fa manqué